téléspectateurs et amis internautes, bienvenue dans votre émission préférée Audace. Ce nouveau numéro, nous aurons le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur plus connu sous le nom de Moussa Gueye, fondateur du groupe MTG Création, devenu récemment k s autrement dit Kaysol en Wolof. Moussa, bonjour. Wow. Wow. Nous sommes les modèle de réussir. vraiment kontaan nañ tamit ci search bi ngeen ni search pour wane lépp lu nga xamante ni eh, jeune Afrique ak jeune Sénégal ñu ngi koy def ci dëkkam quoi. Mhm. vraiment rafet nañ ñoom. d'accord Moussa tey ñu gis la nga nekk ku nga xamante ne dafa gaaw a jël ay engagement ay responsabilités am xaarul dara léegi bala ñuy xuus ci loolu sax ak ci li ngay yëngu dañuy dem wana ne askan bi kenn mooy Moussa ñu ñëwaat. Très tôt, Moussa quitte l'école et intègre à l'âge de 12 ans un atelier de tapisserie générale où il sera initié et formé pendant 10 ans. Cependant, il se démarque très vite des autres apprentis de par son intelligence et son habileté faisant sa progression rapide au sein de l'atelier. À 23 ans, il se met à son compte et ouvre son propre atelier où il laisse cours à sa créativité et se lance dans la confection de sacs à dos avec sa marque MTG, autrement dit Moussa Toreske. En 2017, il collabore avec l'artiste rappeur Deep Dungis en lui confectionnant des sacs avec le logo de l'artiste, ce qui lui a permis d'ailleurs de se faire découvrir par le grand public. En 2018, il met sur pied sa propre société, le groupe MTG Création, qui deviendra plus tard le groupe K3S. Aujourd'hui, l'entreprise compte 5 employés et est en collaboration avec plus d'une trentaine de marques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Depuis 2018, le groupe K3S se fait chaque année le programme MTG School Tour au niveau de Grand Yoff, remettant aux meilleurs élèves des écoles et lycées de la commune des sacs en guise de récompense et d'encouragement. Moussa Gay est un jeune Sénégalais qui compte réussir dans son pays, agrandir sa structure afin de promouvoir à travers le monde entier le savoir-faire africain. Moussa kon gis nga li nga xamante ne moom lañ fi jota wan askan bi kan mooy Moussa mais ci yow boo doon wax sa bopp Moussa mooy kan ak fu mu jaar ci école ak yu ni mel. premièrement maa ngi tudd Moussa Gueye. Mhm. ñu gën ma xam ci Moussa Torres parce que mhm. c'était un jeune boo xamante ni dafa nekkoon ci quartier bi nga xamante ni. Mhm. comme ku dégg grand souvent côté bu négatif rek lañ koy wax. man nag de am na benn certain moment boo xamante ni su fekkoon sama parents yi bàyyi nañ ma. yaakaar naa di naa versé wu côté boobu parce que am na am na ñu ma dëkkal ci ñoo xamante ni gis nañ leen si lu ñaaw ak loo xamante ni rafetul ci image u Grand Yoff mais man dama doon jàng mais dama teel a bàyyi jàng c'était en 2003 laa bay jàng mhm. mais maa ngi doon taxawaalu parce que euh, boo xoolee ku jàngul souvent bu ñu la yóbbuwul métier rek si taxawaalu ngay nekk te commencé war naa taxawaalu ba ñu nekkoon benn nit bu terrible mhm. te xam naa ne suñ ma bàyyi woon ci noonu du baax ci sama sam papa si la ne daf may yóbbu pour ma dem def tapissier mais waxuma ko quoi dafa dama toog benn jour nii comme vacances nii rek ñu waroon dem terrain fubali sama sama copain yi dem war a dem fubali après sama grand bi ne ma kaay kaay ñu ànd waxuma sax fu may yóbbu sama grand bi ne ma kaay ñu ànd ñu ngi dox quoi ñu dox ba yegg benn bu côté sori nii rek mu ne ma dama lay yóbbu nga dem liggéey ma ne ko genre ban genre liggéey moom mu ne ma tapisserie quoi man nag jour boobu laay soog a dégg ci boobu sax parce que xale laa woon xaw ma woon sax luy pour man tapisserie mhm. comme genre benn ñuy dagg ay tapis la affaire yooyu quoi parce que tapis bi ma dégg rek si yoon bi nag saa yu ñu doxee benn cent wala trente cinquante mètres rek ma ne ko waa lan mooy tapisserie mu ne ma noo nañ dem rek bu ñu yeggee ci atelier bi nag euh, Liberté 6 ñu ñu ñu dañoo dugg bunt bi rek ma gis ay fauteuils yu ñu teg quoi comme ça ñu dugg ma gis ay fauteuils yu ñu teg sama mag bi mu ngi waxtaan ak sama patron quoi mais maa ngi toog. c'est la première fois ma gi sax fu ñu defaree ay ay ay fauteuil quoi ma toog. loolu c'était en quelle année. c'était en at. à maa ngi am ay 12 ans 12 ans oui 12 ans la amoon. ma maa ngi maa ngi jàkkaarloog fauteuil yi quoi ma ne waaw ma ne lii may tapisserie quoi man lii nan laay def ba liggéey ko est-ce lii man mën naa ko liggéey sax sama première xalaat yoolu moom image boobu duma ko mës a fàtte quoi parce que dama daan toog su ma jàkkaarloog fauteuil bu ñu defar noonu ma ne waaw. man lii lañ ma indi ma defar man lii fa laa koy mënee yàlla def nag ndeysaan après peut-être amour amour bi foofu la ma duggee nag. tey jii nga nekkoon ku gaaw a ës ku turbulent ni koy xale yi di waxee yàlla boole la ak euh, wayjur yu nga xamante ne xam nañ lañu ñu bëgg tey jii euh, nga nekkoon tapissier nga dem tey ba créer sa ay marque di liggéey ci wàllu defar saag ak dàll ak yu ni mel loolu naka la ko naka la la dikkee lu tax automatiquement nga génn ci métier boobu noon daal di dem ci li ni mel. waaw parce que loolu. dafa dafa dafa wane ñaar quoi. Mhm. benn xëy na nekk naa ko am te dafa am xel. parce que soboon tamit ci bugguma woon nii nekk ci atelier rek toog nii di xoolee. Mhm. loolu tamit dimbali na ma ma a créer lu bari parce boo xoolee. Euh, métier am tapisserie dafa nekk métier boo xam ne nekkul si ñëpp la dox quoi parce que soo fa nekkee di liggéey du liggéey boo xamante ni chaque jour nga koy gis tamit da ngay gis boo amee liggéey tey mun nga toog ay deux trois mois doo am liggéey fi fi ñu doon liggéey dafa metti trop man nag souvent dama daan def su ma su ma deful dara ni ma jóg di def dara ci table bi wala temps bu nit ñi toogee comme heure pause man ma jóg dem di tracer ma may foo daal dañ ma daan sax tere mhm. su fekkee damay bàyyi ba ñu génn rek man tamit ma dem ma dem toog taxaw ci table bi di tracé idée bi nag mu ma dikkee ci sama patron benn année dafa dafa dafa dafa waroon jëndal soo doomam saak quoi. Mhm. parce que amoon na fa ay cuir nii. ma ne ko est-ce que doo ma jox euh, doo ma jox cuir bi ma defaral la sac au parce que sac au yi ni mu ko xoolee nii su ma ko gisee war naa ko mën a defar. mu mhm. ne ma ah ma ne si la ma jox nag ma jël saak bi ma jël cuir bi tracé si ñëwal ko saak bu rafet mu yóbbul ko doomam après si la ko si la sama tante ne ko saag bi rafet na de saag bi sax moo gën a dëgër saag yu ñu doon yu ñuy jënd ci marché bi affaire yooyu noonu depuis boobu nag mhm. affaire bi commencé di ma dugg ndànk-ndànk quoi ma ci foo noonu di ci foo di ci defaral sama waa koñ yi chaque jour affaire bi di gën a progressé nag mais li gën a tax nag ma gën ci concentré wu parce que place place bi comme ni ma la ko waxee woon doxul dem na ba mu yàgg après ma bàyyi fa mhm. dem yoof di liggéey tamit liggéey foofu doxul ma uti faat beneen xam-xam ci laa dellusiwaat Liberté 6 di di di di di takkale ci affaire yooyu mais ba tey nekkaguma ci saag yi noonu mais maa ngi ci fauteuil yi quoi. d'accord mm. vous avez connu je peux dire des débuts très difficiles tey say début est-ce que mën nga si ñëwaat nga wax ñu ci naka nga commencé ci ñaata ci xayma. waaw début début bu difficile sax bu difficile parce que ñun euh, euh, comme ni ñu koy wax nekkuñ ci famille bu riche tamit quoi nekkuñu famille boo xamante ni dinañ lekk dinañ naan dinañ sol yére mais am na yenn besoin yoo xam ne da koy soxla tamit pour pour yow quoi. moo tax début bi day difficile parce que jàngu métier rek un dafa métti mhm. jàngu métier rek yow da ngay yeew suba teel ndékki sax doo ko def yenn saa yi da ngay waaxu dem ba atelier yenn saa nga dem atelier tamit yenn saa yi du am mhm. nga laal si gerte caaf yi gën a xam pour mën a ngoon après nga ñibbi si xam nga loolu tamit mhm. bu fekkee yow guerrier nga quoi maam ñame nga lu metti loolu après du jafe si yow pour nga pour nga mën a génn si yenn spectacle man dama dama dama dama nekkoon nit koo xamante ni Euh, comme ni ma la ko waxee sànq si début bi dama dama xawoon dëgër bopp quoi ma xawoon dëgër bopp moo tax sama début metti na mais dama jàpp ni <laughs> c'est normal quoi. Mhm. parce que lu ma jàng pour pour suba la. Mhm. loolu la quoi moo tax man début bu difficile la am début bu difficile jaar jaar comme comme li nga wax sànq ni ci ci ci ñaata nga démarré loolu loolu je pense que munuma ko wax sax parce que mhm. démarré wu ma ci dara bokk. démarré ma ak xaalis parce que. Euh, ba ma liggéeyee ci atelier boobu. Mhm. ba ba deux mille douze deux mille deux mille quatorze. Mhm. si la bàyyi après ma ñëw nag toog si kër gi parce que instant boobu comme bëggoon naa tam liggéeyal sama bopp ba may jógee atelier dama dama jékki rek ma bàyyi quoi. Mhm. après ma ñëw toog si atelier bi ma damay demal sama bopp. mais loolu toog naa ci pendant deux ans yoo xamante ni su ma yow damay sangu kalu su ma amee tamit am na ay clients yoo xam ni. amoon naa leen foofu suñ ma wooyee ma liggéey leen après ma toog benn deux ou trois mois du ma liggéey mu metti nag. yenn saa da nga yeew sax doo am loo ndékkee mais ñu siy jàpp rek ba benn jour benn jour nag euh, ma am benn salon fii nii suñu ginaaw koñ ñu fay ma ci cent vingt mille loolu duma ko mës a parce que si laa jënd sama première machine ñu ngi ma fay cent vingt mille jëndaguma tisi sax pour salon bi ma dem jënd machine bi maa ngi jëndee machine bi cent mille mhm. après si lañ ma abal euh, trente mille ma dolli si jënd tisi bi liggéey salon bi yóbbu ko si laa am sama machine bàyyi ko sama néeg su amee liggéey di ci takkale di ci takkale di ci takkale ba uh, muy gën dem tamit. tey jii nga nekk ndaw bu nga xamante ne ay atam motagul sax ci ñaar fukk ak juróom bu ma bu ma xamee wala ëpp na ko. na ko ëpp na ko voilà lu mu ban ban xale nga ba tey. nga tey nga yéen si sa atelier bi tamit du yow rek yaa fi nekk ndax yaa ngi fii liggéeyandoog ak ñeneen ay xale Sénégal tey jii sa chiffre d'affaires buñ ko doom ma xayma ci ñaata lay lool ak xale yi tamit bu weer bi deewee naka ngeen di leen di partager xaalis bi walla. Hmm, loolu moom dina jafe ma wax ko trop. parce que mën nga bañ a joxe exactement. waaw à parce que ñun du ma ne chiffre d'affaires buñ koy am. Mhm. duñ ko am ci ci kii quoi duñ ko am ci. ci ci benn maam année bi par exemple ñun benn année benn benn moment rek la ñuy gis suñu bopp ci liggéey bi mhm. te day tane rek après si ngay mën a jënd yenn machines yi mooy ouverture su jotee parce que ouverture su jotee boobu moom dinañ ñu solliciter parce que dañuy liggéey loolu. comme à peu près bu ouverture jotee di ngeen liggéey à ñaata ci xayma. à ay neuf cent millions yi rek xam nga loolu moom boo paree faj ci say soxla sa jënd si yenn machine yaakaar naa après. est-ce que dina lay arrivé marché école yooyu noonu ngay gagné yeneen marché. waaw dina may arrivé nag souvent may gagné yeneen marché comme ay ay club de sport yoo xam ni wala ay borom marque mm-hmm. ñuy liggéey mais du du doon fréquemment quoi mm-hmm. comme benn benn coup lay doon rek bu ñëw après nga def ko mm-hmm. après nga nekkaat ci leneen noonu la quoi d'accord tey jii euh, ñi nga fiy liggéeyandool ñaata lañ fii ñu ma fiy liggéeyandool actuellement cinq lañ cinq lañ ñoo xamante ni man kenn ki sama la ñaar ñi man maa leen jël ñooñu bu weer wi deewee da nga leen di fay wala lan. non non <laughs> comme comme waaw dañuy jàng métier te boo xoolee amuñu doole boobu tamit quoi mais ñun ñu ñun ñun lu ñuy def mën naa ne ëpp na sax fay parce que tey boo jëlee xale loger ko di ko jox mu lekk jox ko mu naan. Hmm. Ah, dëkkal ko ci kër. waaw kay formé ñun defuñu formation boo xam ni sax ñoom dañuy ñibbi seen kër. ñi ma lay wax nii si kër gi lañ loger fii la ñuy lekkee fii la ñuy naanee lépp. Hmm. ñoom daal seen waajur dañ ñu ko dénk. Hmm. noonu lañ ko mën a waxee quoi. d' accord tey jii est ce que yomb na nga nekk businessman fii ci Sénégal ngay gérer ay ndaw aussi tey ci lu ci mel ne quartier bu mel ni Grand Yoff yaa ngi koy wax ci loolu xaw a dëgër torop non loolu di yombul tamit quoi yombul mais tamit comme ñun suñu jaar-jaar yaakaar naa boo amee benn jaar-jaar bu difficile yaakaar naa lu métti soo doo ko du yomb nga koy nga koy xam quoi. Mhm. même bu dee am na man souvent dama koy wax man damay man toog naa benn jour sama emprunté ma ko expliqué ma ne ko est ce que xam nga. 2015 tolloon naa benn moment boo xamante ni mhm. dama daan yeew du ma am sax lu man ma ndékkee mhm. mu metti te fu ma dëkkoon dama fa luwe woon parce que euh, ma suñu kër damaa luwe feneen après mhm. suñu kër laay liggéeyee quoi mu danaan metti trop mais damay toog ma ne day ndeysaan est-ce que dinaa toog sax ba ma xalaat ne est-ce que nit mënoon na toog ba ñàkk cent francs te pourtant ça m'est arrivé quoi dal na ma mais moo tax man la lu metti souvent dina am mais dund bu ma ko dund moo tax pour moom yëg ko day day day xaw a difficile quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà nee nga dollar arrivé cent francs sax doo ko yor tey Moussa mi ngi sant yàlla. waaw ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla comme comme bépp liggéeykat ah je pense parce que tamit même bu fekkee benn cinq mille francs sax di nga ko am tamit ci semaine bi tamit loolu sant yàlla la mm-hmm. tamit quoi. d'accord mm. tey jii ku wax euh, li nga xamante ne mooy entrepreneuriat Moussa wax li nga xamante ne mooy échec waaye it euh, parfois perte. est-ce que yow bi nga taxawalee sa entreprise ba tey ñu gën ko xam ci MTG wala k s am na bés yu nga xamante ne mitti na loolu maanaam perte am na si ba nga sa yaakaaroon nga ni sax sa li nga xamante ne mooy business fa lay jaay normal. Mm, waaw lu perte non comme comme comme sànq rek xam nga euh, perte ñun mënuñ ko enregistrer parce que nekkuñu benn entreprise bu mag quoi. Mm. nekkuñu entreprise boo xam ne dañoo dem dañoo démarrer ak ay fonds mm. comme. ñun lu ñuy démarrer lu ñuy lu lu ñuy gagné mu ngi ñëw si sur commande comme nga ñëw commandé ma saak. Mhm. te par exemple ma jënd nii mu des dara ma denc comme maanaam. Mhm. ñun lu ñuy liggéeyee mënuñu enregistrer perte actuellement. Mhm. peut-être nag ñu ngi bëgg ay boutique ak yooyu peut-être loolu suñu amee. dinañ sentir ni fii perte am na parce que soo jëlee site tamit dafa say say marchandise yooyu yëpp yëpp. tamit ay doxul loolu mun nga wax ni carrément li ngay liggéey am na perte wala risque mais. Euh, perte moom wax dëgg yàlla ñun peut-être yeggaguñu niveau boobu quoi. Moussa tey ci sa ay début yaa ngi tàmbale woon ak benn machine boo xamante ne da nga ko dem jaayante ko jënd ko tey ji yaa ngi ci ñaata machine macha allah. waaw ñun ñu ngi sant yàlla nag ñu ngi tàmbalee ci benn machine en mil 2014 waaw parce que balaa may jóge atelier laa jëndoon machine boobu mooy li ma ko mhm. waxee mhm. mais léegi ñu ngi ci cinq machine macha allah ñu ngi sant yàlla nag cinq machines ak cinq employés. ñoo xamante ne macha allah yaa ngi leen di jàppale ci li ngay dem Moussa ci sa liggéey boobu tey nga am ci collaboration bu nga xamante ne Sénégal yëpp xam nañ ko muy ki gën a mag ci rappeur yi ci Sénégal muy Dip Doundou Guiss te mu nekk sa dëkkandoo collaboration boobu naka la dikkee ak lan la apporté ci sa business. waaw loolu nag euh, lu may sawar wax la quoi parce que dafa nekk lu ma marqué tam ci sama live mhm. comme lu ñuy wax olof am na nu mu koy waxee xaw ma bu lan lo bu xaw ma lan logee coy na ko gërëmee waaw kay bu olof xaw ma lan mhm. noo ko wax ci olof quoi mhm. mais tamit côté boobu dama ko ci sant parce que Dip comme ni nga ko waxee à part rappeur bi mu doon comme euh, euh, ñoo bokk ñoo màggandoo ci bépp benn ko ñoo juddandoo fii ñoo fi màggandoo dëkkandoo ba tey yàlla may ko mu persis beneen côté man man nag maa ngi doon liggéey tapisserie quoi mais maa ngi doon def saak mais mhm. ba ma ñëwee fii defuma ko mhm, mhm. par la suite nag xëy na moom gis na ma may toog lu bëri quoi mu ne ma booy est-ce que duñu duñu duñu ñëw ñu business ci saak yi affaire yooyu man nag ay temps daf ma daan wax mais man jëluma ko woon au compte quoi jàpp ma ni woon loolu lu ma mën a may dara la mu insisté ci nag ba benn jour ñu ñu finaliser mu ne ma dama bëgg ma defaral ko saak ak logo ma defaral ko benn mu jàll ma defaral ko ay ma defaral ko ay saag yu bëri Mhm. ma defaral ko par exemple première commande yi mhm. mu ngi ma commandé quinze sacs mhm. euh, ma defaral ko quinze yi jàll depuis boobu nag après ndeysaan si la si la si la affaire bi ubbeeku moom muy def ay concert di ma invité ba public bi di ma gën a xàmmee nag si la gën a versé wu nag ma euh, ma xam ni nag carrément affaire bi fii la nekkoon moom moom ma tourné ci beneen côté mais liggéey tapisserie bi ma doon def bàyyi ma ko maa ngi ci ba léegi. ñu ngi ciy liggéey. mais tey nga liggéey ak Dip Doundou Guiss si noonu la tudd dëgg la doon na la ci insister mais lan la la apporter exactement ci ci business bi au fait fu la yóbbu tey la fait que nga liggéeyal ak Dip Doundou gis non moom laa lay wax loolu fu ma yóbbu dafa kawe trop parce que musuma xalaat ni tey man dinaa comme ni nga ko waxee ñëw taxaw nii di wax ak man tamit su amee tamit mm-hmm. ginnaaw yàlla moom tamit mu ngi ci ko parce que euh, daf ma woo man fu may wax ak yow def def naa man vidéo mhm. invité na ma ci concert am présenté ma public di boot sama saak di ko yóbbu partout dans le monde fu ne la ko yóbbu comme loolu rek yaakaar naa doy na publicité quoi te moom comme comme si laay jël sax occasion ma saluer ko parce que def na loo xamante ni loolu la ñuy wax jàppale nit parce que nit ku nekk yaakaar naa même bu dul ku nga dëkkandoon koo gisee jeune mu ne ci quartier nga war xam ni am na loo mën a def ci moom nga def ko loolu tamit lu rafet la vraiment ñu ngi koy remercier di di rafetlu di ko ñaanal la gën ko def exemple boobu tey jii damay des ba tey ci problème dip ci ci sa relation ak dip dëgg la defal na la publicité ak yooyu noonu bi mu la defalee publicité boobu sa chiffre d'affaires tey mën xayma période boobu noonu mën na ñu xam ñaata la à peu près balaa mu may defal pub de yaakaar naa man zéro laa demee de <laughs> voilà parce que maa ngi lay wax si instant galère laa nekkoon noonu. parce que non pas pas boobu noonu je veux savoir juste euh, chiffre d'affaires avant dib di def pub bi ak bi def bi di defee pub bi maanaam li nga doon ga am ci xaalis. Mhm. boo ko doon comparé aba balaata mu lay defal pub bi ak léegi. maanaam man dama koy jàpp si si si zéro ba cent. Hmm. voilà maanaam pour wan na leen ne moom joué na lu bari ci. ci waaw si sama business daf ci joué lu bari parce que maa moom laa doon liggéeyal de ce fait comme moom mu ngi si son yi nekk si ba mu yàgg du mhm. amati temps wu saag yeeg yooyu mhm. après ñoom xam nga dañ koy bàyyi parce que dañu arrêté woon saag yi mais man euh, xam-xam bi ma yàlla mayoon tamit ma ne est-ce que comme dund gis ñoom dañoo xaw a arrêté saag yi man bàyyi ma dem ci ci ci personnaliser ay saag si la si la idée wu personnaliser sax saag yi ñëw euh, maa ngi fàttaliku sama première saag c'était en noir gris mhm. maa ngi ko bindaloon benn booy Birzo parce que saag bi ba ma koy defar passé naa si une demi presque une demi journée. Mm. saak bi pare quoi. d'accord ci matière ban ngay faral di utiliser. man maa ngi utiliser matière yi nga xamante ni si si ay fauteuil lañ ko doon xamee. Mm. parce que man originalité boobu laa njëkk am quoi parce que mm-hmm. dama bëgg lu lu lu lu lu lu identique quoi. Mm-hmm. loo xamante ni c'est original parce que man comme tapissier laa mm-hmm. damay damay damay jógee si tapissier bi li li ma jàng si tapissier bi moom indi ko ci saak bi pour am tous bu gars yi amul. waaw ah, man chance boobu laa amee quoi moo tax damay utiliser cuir tissu fauteuil yi ngay gis dama koy utiliser en même temps damay utiliser ay eskay base bi dam koy utiliser defar naa ay saak yoo xam ne base lañ ko defaree ay mica mooy genre toile bi nga xam dafa clair nii da koy gis genre yooyu yëpp dama koy utiliser vax nag si laa si ñëw dugg def dam ci def vax ay pagnes tissé lépp lu nga xamante ni nit ñi dañ koy soxla moom loo yaakaaru sax dama koy def ci saak. en fait pour confection benn sac wala benn paire de chaussures ça te prend combien de temps en général. benn sac ça me prend des trente minutes ah trente minutes. pour confection bi. waaw dàll bi. dàll bi ay waaw même même même heure la rek ah. ay kon yow kon euh, problème timing amoo ko et tout par rapport ak sa liggéey. non non non par problème timing moom aw ma ko parce que dafa yàgg quoi xam nga nit booy def comme peut-être nag nit yëpp yemuñu mais man. si man sama liggéey bu bu bu yéex moom man man man xaw ma ko quoi man taf taf rek laay def jógee. d'accord Moussa tey jii euh, nga nekk ci benn ndaw bu nga xamante ne dafay def li ñu naan entrepreneuriat xaaroo kenn ci dara tey ban conseil boo amoon tey moom ngay jox ñi nga xamante ne ñooy jeune génération bi nga xamante ne rek dañu tëdd di xaar lépp naan état état wala sama yaay wala sama papa moom moo war a jàppale. waaw ma leen wax rek ni euh, euh, comme li ma sama sama maam doon wax jàng baax na waaye tamit jàng métier baax na trop parce que loolu moo ëpp solo gis nga boo amee métier dina la mën a permettre nga am ay idée parce que métier boobu si ngay mën a jàng pour génnee fa ay idée parce que man boo xoolee say saag yi ma def ba ni ma si waxtaanee nekkul moom laa moom laa jàngi woon comme maanaam métier bi nga jàng xam bi si loolu moom xam bi ñuy def si yow moo lay permettre nga mën a am yeneen xalaat pour mën a créer leneen moo tax jeune toujours dama leen wax ñu gëm seen boppu jéem a réaliser boo jéemee réaliser gëm ni li ngay réaliser dina tegu yàgg yàgg dina tegu mm-hmm. man daal loolu boobu message la am bépp jeune boo xamante ni yaa ngi yaa ngi ci ci ci nekk jeune mm-hmm. te di di tâtonner sa life bu gëmal ni day baax mm-hmm. gëm ko parce que man fu ne laa jaar obstacle yu ne dugg naa fa def naa lu nekk mais ba tey maa ngi sant yàlla te bëgg naa mu gën a kawe bëgg naa mu gën a ñu gëm ko rek sama gars dina baax incha allah. d'accord euh, nga nekk ndaw boo nga xamante ne ay atam néew na waaye ñin bootu ci ginnaaw bari nañ loolu ay ndaw te ñu nekk ay ndaw tey ban conseil walla lan ban euh, appel ngay def ñi nga xamante ne ñooy sunu autorité yi ngir ñu ñëw andi jàppale la ngir sa liggéey gën a taxaw. waaw loolu lu ma wax nag euh, du bëri parce comme ni nga ko waxee ñun dañoo am fu ñu démarré ba pare mais dañuy ñaan suñu autorité yi ñu gëstuñu ñi ñu nga xam ne ay ay ay ndaw lañ ci réew mi quoi parce que ndaw moo yor ëllëgum réew loolu la ñuy wax souvent ñun dañu am njëriñ ci réew mi ah parce que boo seetloo tey ñun ñun ndaw ñi xam-xam bi ne ci ñun buñ buñ buñ ñu financé jox ñu loo xamante ni mën nañu liggéey pour suñu réew yaakaar naa ni dina néew ñu ñu jëlee dara bitim réew di ko indi fii quoi ñu jàppale suñuy suñuy suñuy suñuy jeunes jàppale maam ñi nga xamante ne ay borom xam-xam lañ nekk ay jeunes parce que jeune tamit comme dafa am njëriñ ci réew jeune dafa am njëriñ ci réew nañ ñu jàppale jox ñu teg ñu si ay jumtuwaay yu baax ñu mën a defar suñu réew parce que loolu ñun soxla nañ ko trop même bu fekkee tamit du ñu taxaw di ko jooy mais occasion bi su amee dañ koy wax parce que ñun tamit ci dëkk bi lañ dëkk occasion bu amee ñu wax ni carrément jàppale leen ñu Euh, parce que boo seetloo tey am na ay ay financement yu ñu fiy wax ak yu kenn xamul ñun def nañ fu nekk ay ay demande mais duñ leen xaar tamit quoi mais dañuy liggéey mais comme dañu ne dem leen ngeen def ay demande ñun jot nañu dem ci ci ci ci plateforme yooyu waaw ay DER ak yooyu yëpp mais ñu ngi xaar mais ba tey sans suite lay nekk waaw loolu la ko d'accord tey jii mënoo wax euh, ci audace andi fi model te ba pare te waxoo ñu kan mooy sa modèle ci Afrique rawatina ci Sénégal ci kan mooy sa modèle sa référence. waaw loolu <laughs> loolu day nekk benn histoire bu xaw a yàgg te sax euh, am naa modèle Afrique am naa modèle Sénégal mais nekkul euh, nekkul model boo xamante ni ci liggéey bi la quoi modèle boo xamante la mu ngi si sama tur comme Moussa Torres bi ngay wax parce que ñu bëri dañ may laaj ndax Torres bi voilà kay loolu la man kooku laa amoon comme modèle quoi parce que dama ko bëggoon ci fulam dafa nit ku am fayda la nit ku am charisme la man dama ko bëggoon ba ma nekkee xale nag parce que dama doon def football comme comme booy nañ ko daan defee di école de football antu mais doxul quoi doxul mais ñu ngi ma doon wax Torres quoi ba mu yàgg nag si laa dem dem métier mais ba ma demee liggéey sama sama tën maa ngi amoon benn Lacoste bu la mais dama bindoon si ginnaaw R nii dama def dama def euh, M def tores léegi nag ñu may wooyee waaw ak numéro 9 ñi may wooyee Moussa Torres nag ndeysaan tur bi di law tur bi di law ba tey ñu mooy woy Torres moo tax man kooku man Torres vraiment man mooy sama idole quoi mais mooy sama référence mais am naa liggéey bi nag aw ma ci référence parce que nekkul loo xamante ni dama ko xool si ko moo tax loolu moo tax euh, mais bu dee référence beneen côté comme carrément ku ma marqué sama live mhm. man moom laay jël quoi parce que mhm. Mhm. Moussa ñu fekkoon la fii tey ci sa biir atelier maanaam ci biir groupe MTG création mu nekk ñu gën ko xam ci k c K3S autant pour moi nga fi nekk nag di fi def liggéey bu mucc ayib liggéey bu nga xamante ne Sénégal yëpp ñu ngi koy rafetlu gis nañ ni jumtukaay yi motewul wax nga tamit nañ la ci jàppale xam naa ni sunu ay autorité buñ ko déggee dinañ la si jàppale incha allah ndax ñoom it bëgg nañ ñu nga xamante ne dañuy jël seen ay initiative bopp gëm seen bopp Moussa ci loolu laata ñuy jeexal rek dañ lay jox nga wax sa kàddu bu mujj waaw sama kàddu bu mujj lu dul di di leen remercier ci seen teewaay bi ngeen teew fii parce que lii baax na tamit ci ndaw ci réew ñenn ñi di wane ñi nga xamante ne amuñu doole tamit pour nit ñi di xam quoi parce que mm-hmm. Sénégal am na yoo xamante ne ay nit ay borom xam-xam yu màcc ñoo xam ne ku leen jàppale ci un mm-hmm. ñu ñu ñu ñu dem. Mm-hmm. Euh, su su su loolu weesoo damay remercier sama équipe bi nga xamante ne ñooy liggéey ak man parce que tey su ma yeggee fii tey. ginnaaw yàlla ñoom la muy muy assan mbay Serigne Malick Aada Bokar. Fallou sama xarit ak jigéenu ñi nga xamante ni moom ñoom la ñuy wax jigéenu MTG parce que jàppale nañ ma parce que man je me rappelle sama première euh, euh, sorti bu ma bëggoon def dama ñëwoon ne damay def défilé défilé ça quoi après si la ma sama benn euh, sama rakk la sax laay wax woo ne ma yow loo bëgg a def mm-hmm. ma ne ko man dama bëgg def défiler mu ne ma yow da nga am da nga da nga am papier mm-hmm. ma ne ko papier wulan mu ne ma nan nga mun a tegee événement te amoo kenn xamu la loolu moo tax dama ko ciy remercier baax Assane parce que jour boobu yokk na lu bëri si sama live vraiment maa ngi koy remercier di remercier ñëpp nga xamante ni mu ngi jàppale MTG di remercier seen bi nga xamante ni mooy modèle de réussit vraiment euh, kontaan naa seen trop yàlla na leen yàlla jàppale incha donc chers téléspectateurs et amis internautes voilà Moussa Gueye un jeune dynamique et professionnel vous l'avez entendu vous avez j'espère bien appris de ses expériences de ses débuts. à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Merci beaucoup. Ainsi donc, se referme ce nouveau numéro de votre émission préférée Audace Magazine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres découvertes.